Rápido. Kolom potem. waaw comme niñ koy defee at bu jot tey euh, journée mondiale de l'environnement ñëw nañ fii ci suñu kër jëmbët fi garab comme niñ ko doon defee feneen waaye di wax rek ne journée bi dafa tombé woon ak ñu tuddee ñu làmb fële ci arène nationale euh, bu faxaat production tuddee ñu ko woon kon ñëw nañ tey célébré ko waaye nag mbiru environnement moom dañ ci gën a soññi suñu bopp soññ si ñëpp ñuy saxook jëmbat garab waaye également ñuy saxoo set ak setal euh, am na solo euh, tey jii fii ci jas defe naa ne dëkku gàncax la mësa doon ba euh, may gën nekk tout tànk àll baa ngi fi woon ne gàñ yooyu yëpp nag il faut ñu dekkalaat ko mais déjà ci buntu kër yi ci biir kër yi foo ñuy jëmbat ga comme ni ngeen ko xamee au niveau du Sénégal njiitu réew mi ci programme am yi bokk na ci li mu tuddee PSE c'est vert maanaam fexe ba couleur verte bi law fépp Sénégal ak ay garab loolu nag lu mu am am solo aussi il faut que nit ñi ñu gën ko gën ko jëlal seen bopp ndax loolu ci njiitu réew mi jublu ba tax na ko dañ leen di gërëm di leen sant di wax également ne bu ñuy wax mbiru environnement bokk na ci surtout mbiru mbalit te jii communes yi war nañu gën a góorgóorlu ci mbiru mbalit waaye benn commune mënul gàddu ay mbalitam bu boobaa du am li ñu tuddee les économies d'échelle moo tax ba dans le cadre de l'intercommunalité bés bu nu yàlla mayoon tey ñu euh, diriger commune Diass dinañ waxtaan ak communes yi ñu wër yëpp bu ñu waxtaan ak ñoom ñu xool lu ñuy gérer ndoo ñun ñëpp suñu wàllu mbalit waaye pas pour enfouissement rek waaye pour traitement maanaam fexe ba am fi unité boo xamante ne sunu mbalit yëpp dinañ ko traiteel sunu bopp ndaw ñi liggéey ci te buñ ko traité ba noppi également ñu mën ko jaay wala ñu mën ko utiliser euh, toujours dans l'intérêt des populations ndax tubaab daf ko tuddee ordure waaye ordure mooy mbalit waaye par exemple daf ko tuddee ordure maanaam mburusu ngalam bu dëgër ba tax na tey dans le cadre du développement durable il faut que communes yi de plus en plus ñu jëmbat garab mais également ñu gérer ndoo ñoom seen biir les déchets mais dans l'optique d'une transformation ndax centre d'enfouissement amul njëriñ am njëriñ mooy traitement te traitement boobu bu ko commune yu bëri ëmbee seen i ndaw mën nañ ci am liggéey liggéey bu am solo kon loolu laa leen naa ko ci yokk di wax ne ñu leen di gërëm di leen sant euh, di leen ñaanal yàlla jàmm ak salaam di ko ñaanal suñuy bopp ndax jàmm ci la lépp xaj ndax commune yi Diass moom commune la boo xamante ne ñëpp ay mbokk lañ ba rawatina également ñi nga xamante ne ñu ngi yëngu ci wàllu politique. may réaffirmer sama ancrage ci benn bokk yaakaar di ko réaffirmer di réaffirmer également encrage boobu nga xamante ne am nañ ko ndax jas moom au delà de benn bokk yaakaar am na yeneen structure yu ñuy jàppale ci liggéey bi te incha allah euh, li ci kanam raw li bët ñu leen di gërëm di leen sant prétexte laa jëloon rek ci journée mondiale de l'environnement bi pour di leen nuyu di leen sargal asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërëjëf